ci daje moom ci nas lañ doon waxtaane nask nask mooy lan istilaaxan bi ko istilaax istilaaxan nasxal an dara ñu ñëw indi àtte yeneen wax ñëw ginnaawam teggi àtte boobu teggi lu mën a wax indi àtte yeneen wax ñëw ginnaawam teggi àtte boobu la wax mooy dalil fii jan wax ñooy ñooy ñooy ñooy noonu jan wax mooy mën a teggi teggi àtte jan wax tayo ko nag yow li nga tontu ñu lay bokkul ah alquran dana nasxa alquran hmm. non non rek ban hadis mooy nasxa alquran hmm. alquran dan nasxa alquran alquran dan naskah hadis hadis dan naskah hadis ban xadis mooy nas ban xadis hmm? xadis mutawaatir daa nas xadis mutawaatir hmm. daa nas alquran alquran daa nas daa nas xadis xadis mutawaatir daa nas alquran xadis mutawaatir daa nas ko bu mën doon ak la nag des na alquran daa nasx alquran daa nasx xadis bu mën di doon xadis mutawaatir daa nasx alquran daa nasx xadis bu mën di doon gis na benn ci xadis suñu ah xadis bu dul mutawaatir dana nas dana nas moromam xadis bu dul dana nas moromam mooy kon nas lu ëpp doole mooy nas maanaam lu wala lu tollool liy nas day nas lu ëpp doole wala lu mu tollool doole waaye lu lu luñ ëpp doole mënut a nas la ko ëpp doole. mooy lu dul mutawaatir mënut a nasx mutawaatir ndax mutawaatir ëpp doole waaye yu tolloo nasx mën naa seen diggante lu ëpp doole it mën naa nasx na ko gën a néew doole moo mën naa nasx alxuraan mën naa nasx xadis yëpp xadis mutawaatir itam ginnaaw mutawaatir moom lépp moom itam ndax lépp benn mu tolloo moom mbaa mu ëpp féete kaw xadis bu dul mutawaatir nag. مرام لما نسخ مبرود متعرف مانت تاي من نانا جل خير نياري بنت يجب بابون في بيان ما يفعل في التعارض بين الأدلة والترجيح أك باب الإجماع باب في بيان ما يفعل في التعارض بين الأدلة mooy addila yi bu ñu defee taarud taarud mu dañ naan wuute rek wuute bu ñu wuutee wa tarjeex mooy li ñuy def itam lu ñuy tarjeex taarud nutqayni fi l axkaami yati ala arbaati aqsaami إما عموم أو خصوص فيهما أو كل نطق فيه وصف منهما أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر من تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام نطق نطقان ما دليل دليلان دليلان دليلان يعني دليل فهذا day تواخلي أمي وأبي أمي تي عمل تفعل مقصود قولي أمنا فعل يا أم بني وقت عارضك بيوينك تقولي لي جم تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام كون نياري دليل سنقوته نينتي أنا ملا نينتي أنا ملا نينتي خاجلة نينتي أنا مجام نينتي أنا موته مجام imma umumun aw xusuusun fihima benn ñaari dalil yëpp umum bu ci ne daa am ci nekk dafa nekk am dalil am wuute ak dalil am beneen dalil am aw xusuus wala dalil xaas wuute ak dalil xaas ñaar dalil yëpp umum daa am wala ñaar yëpp xusuus am ci loolu ñaar la kon ñaar la ñoom ñu bokk nekk am wala ñu bokk nekk xaas aw fii nutqin fihi wasfun minhuma wala boog ñaar yi benn bi daa nekk am benn bi nekk xaas kullu nutqin mooy kullu dalil fihi wasfun minhuma wenn wenn ci ñaari melo yi da caa nekk mooy bii daa nekk am bee nekk xaas wala bii nekk xaas bee nekk am muy ñetteel bi ñeenteel bi aw fiihi kullun minhuma wala boog dalil bu ci ne ñaar yëpp na ci moom mooy umum ak xusuus yëpp na ci moom loolu la ñuy tuddee umum wa xusuus wajhi am seen diggante umum wa yi wajhi day am seen diggante wa yu'tabaru kullun min al wasfayni fi wajhin zahar bi sama wajhi gi mu waxoon mooy ñaari dalil yi bu ci ne da gëna a yaatu morom ji ci wet gën ko xat ci wet bu ci ne gëna yaatu morom ji ci wet gën ko xat ci wet loolu dañ ko amam waxtu socc yu mel buñ ko bëggona a lu mel ni amam so ci yi buñ ko bëggona a lu njëkk la ñuy tuddee amam waxtu sus mutlaq buñ ne mom rek mooy mutlaq buñ ne mom waxu suus mutlaq moom mooy ñaari dalil yi benn bi daa ëmb moroom bi ba ëppalee ko lenn dafa ëmb moroom bi ba ko lenn lu mel ne buñ ñu noon murit ak jullit baatu murit ak baatu jullit baatu jullit ëmb na lépp lépp murit ñu ci biir jullit ba noppi mu ëppalee ko am am lu doon jullit te du murit kon dañ naan diggante murit ak jullit umum waxu suus moo fi am jullit am la murit di xaas mooy murit léppam daa dugg ci biir jullit ba noppi jullit dese leneen mooy umum waxu suus mutlaq bu dee umum waxu suus wàcc yii nag mooy ñaar yooyu bu ci ne ëmb na moroomam ci wet moroom ji ëmb ko ci wet mais gën naa yaatu moroomam ci wet moroomam gën ko yaatu ci wet lu mel ne buñ ñu ne woon sénégalais ak jullit wala sénégalais ak murit bu ñu ne sénégalais ak murit wala sénégalais ak jullit lu ñu ci mën di wax rek mooy ne sénégalais gën naa yaatu murit ci wet waaye murit tam gën naa yaatu sénégalais ci biir ndax ci biir murit sénégalais ci lu dul sénégalais ci ci biir sénégalais itam murit tam ci lu dul murit tam ci kon ñoom ñaar ku ci ne ëmb na moroomam ci biir moroom ëmb ko ci biir mooy min wàcc boobu ñuy wax am la min wàcc di xaas min wàcc sénégalais am la min wàcc digganteem ak murit ndax ëmb na murit waaye xaas la min wàcc ndax murit ëmb na ko waaw boo ko defee addile itam lu mel noonu day am seen diggante muy wax nag bu waxee ñeenti xaaj yooyu ñoo ci am muy wax nag nu ñuy doxe nu ñuy doxale bu amee bu taarut amee nan la ñuy doxale mu ne fal jamu bayna ma taarada huna fi l awalayni waajibun in amkana mu ne boole yu yu wuute fil awaleen mooy ci ñaari njëkk yi mooy ci umum ak xusuus ñaar yooyu bu dee ñaari am la walla ñaari xaas ñaari am ñoo wuute dañ leen di jéem a jamoo ñaari xaas ñoo wuute dañ leen di jéem a jamoo in am kana nag mooy bu dee jamoo mën naa nekk وحيث لا إمكان بجمع منتنك فالتوقف توقف معين آه، تخاو تخاو بنججي في بان ما لم يكن تاريخ كل يعرف لدولنا بنجا خمسين سين تاريخ خم ني بي يعني مو جيتو بي ني خمي ني بي مو جيتو بي موم بو نسخ لا ني نسخ لا ني سوكانيكو dañ naan bi mujj dafa nas ko bu njëkk ba bu amul nag dañu door a xool leneen tawaquf bi sax balaa ñëw mooy bu nas buñ buñ buñ mënta wax waxi nas it dañ jéem tarjeex buñ jéemee tarjeex nag amuñ fuñ sukkandiku ba tarjeex lañu door a tawaquf tawaquf mooy mujj hmm. kon jamono la njëkk mané nek ñu def ko bu nek ñu xol ndax danañ xam tarikh ñu xamé tarikh ñu ne ko nas mo am buñ xamul taarix nag ñu jéem a tarjeex bu ñu munta tarjeex nag ñu door a kon mooy bu dee ñaari am ñoo ñoo wuute wala ñaari khas wuté fi al-awwalayn متكون فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم خمسة تاريخ مم بموج بنيار البي ماي بموج واتش بموج بموج بموج ماي ناسخ بجير بدأ نتال بينك نتال ماي فيه آه، آه، أو فيه كل منهما wa yu'tabar mooy aw kullu nutqin fihi wasfun minhuma mooy benn am ak benn xaas bii day am bii di xaas boobu mooy ñetteel bi mu ne waxasasu fi thalith almaaluumi bi dil xusuusi lafza dil umumi ab dalil daa ñëw am beneen dalil ñëw nekk xaas te ñoom ñaar ñu wuute بوبا خصصوا بني تخصيص بني تخصيص لفظ ذي العموم بنك عام دنكو تخصيص بذي الخصوص دنكو تخصيص بنك خاص بنك عام دنكو تخصيص بنك خاص loolu mooy ñett mooy bii daa nekk am bii nekk xaas ñu wuute kon bi nekk xaas dañ koy tax siis bi nekk am mooy kon bi nekk am rek dañ koy firee bi nekk xaas dañ ko koy firee dañ koy tax siis mel na misaal mi joxoon foog naa ci fataxaru raqabatin ak fataxaru raqabat mu'mina fataxaru raqabatin rek raxabatin rek daa lépp luy raxaba dugg na ci biir kon nag raxabatin mu'mina ko nekk xaas moom bii nga xam ne lépp luy raxaba dugg na ci biir buñ koy firi dañ koy firee bële dañ naan bële da koo tënk bële da koo tënk kon fi mu tuddul mu'mina itam buñ koy firi dañ naan jublu na ko ci ndax xaas ko moo ñu wan ne jublu na ko ci loolu mooy mooy mooy day ñaari am ci misal lu melne dañ fa joxe misal ci ci adda ci adda wal ladina yutawaffawn minkum wa azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arbaata ashhurin wa ashra kuma addatu almutawaffa anha zawjuha ak ulatu alahmal ajaluhunna an yadaana hamlahun bi di wax ci kifa ba ñuy ba ñuy jàpp yidda kooku dane soxna si ñu ñeenti weer lay toog nga xam ne soxna si xajalut san soxna la xajalut san soxna la xajalut ndax daa ëmb wala ëmbut kon mooy amula ci wàllu googu waaye lii tax ñu jàpp idda moom xaas la ci faatu ci faatu rek la aju ci faatu rek idda joo xam ne faatoo tax rek kon waxul idda ju mën di doon waaye idda ji faatu tax te la wax gis nga kon jëmi daa am lu ci nekk am ak lu ci nekk xaas lu ci nekk xaas mooy li aju ci wane ne idday faat faatoo tax loolu xaas la waaye nag li muy jàpp ci idda am la kiy jàpp idda ci boppam li muy toll waxut kiko koy jàpp ndax da nek hamil wala nekul hamil jeneen laaj ñëw momit ne ulatul ahmal ajaluhunna ay yadaana hamlahun ñi ëmb gis na fofu ñi ëmb rek la wax waxul ñi ëmbut waaye waxut nag ba xam momit ci faatu la wala ci ci passé la kon na am la ci wàllu boobu ñoom ñaar nag ñu safaanoo ñu safaanoo mooy kon ndax ki nga xam ne da faatoo tax muy jàpp idda bee faatu tax muy jàpp idda ñeenti weer rek fukki fan mooy iddaam te kii ñëw ne mu mu mu bu daa ëmb mu am doom mooy fara iddaam bi jeexe bu muccee rek iddaam jeex na day mën na ñoom ñaar kii nee bu muccee iddaam jeex na bii ne bu amee ñeenti weer rek fukki fan day jeex kon day mel ne wuute nañ foofu mu bu ci nekk day tax siis xaas bu ci nekk day tax siis am am mi moroom ji xaas bu nekk day tax siis am mi moroom ji kon mooy xamlu gi nga xam ne euh, xamlu gi nga xam ne xaas la dañ ciy tax siis nga xam dafa faatu dafa faatu euh, ñeent weer ak fan yooyu dañ koy taxsiis bu fekkee ab ëmb la bu fekkee ki kii jàppee dafa ëmb xaas bi nekk dee taxsiis am ba nekk fële wa ulaatul ahmaal ajaluhun itam fii mu ne ñi ëmb itam seen idda mooy nangam waxut waxut idda ndax ci idday faatu loolu idday passé daa nekk am foofu wala ci tawafoon minkum daa nekk xaas foofu xaas jooju mooy itam day day tax zaam ji fii mooy kon dañ naan moom bu naan bu naan ñi ëmb ñi ëmb seen idda mooy ñu ñu mucc seen idda mooy ñu mucc ñi ëmb jooju day tax siis euh, day tax siis nga xam ne dana woon waxutoon ëmb ñàkk ëmb kon yan bu ëmbee kon du du négati ñeenti weer rek lu ci tënkooti ci tam ñu ne ki faatu moom itam du ñu wax ne ñeenti weer rek lay am waaye bu ëmbee moom itam ëmb bu mooy boole ñaari kon dañ dañ mujj ñu ne daal lu ca lu ci ñoom ñaar rek lu ca mujj am mooy ki ëmb ba noppi du jàpp yi day faatu ki ëmb du jàpp yi day faatu ba ca mujj ca ñaar ya moo mooy mooy sot moo lay jàpp mu ne wa fil axiir yi mooy lañ ne mooy bi ñu wax léegi satru kulli nutqin min kulli shiqin xukmu daaka nutq mooy bi ñu doon wax léegi bu ci nekk daanaka am min wacc nekk xaas min wacc kon lu nekk xaas ci dalil bu ci ne day تخصيص لنا كعام تدريب بجلس ما بين دماغ لجنة وتقمنا فخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسمه وعرفنهما ما بوجنا كعام ننكو تخصيص بجلس نك خاص تبوجنا كنك نعم نك خاص نك نعم من وجه نك خاص من وجه كون عام مام دونك تخصيص خاص بله خاص ميتم تخصيص كعام بله loolu mooy diggante bu taarub amee taarub nag dañ naan wuute wuute wuute rek wuute gi nag mën naa doon wuute dëgg dëgg dëgg dëgg mu tudd safaano safaanoo moo ñaar yooyu mu nees leen boole jëfe mu leen boole jëfe loolu mooy dafa safaanoo wuute nag mooy ci ci maanaam yi rek ak déggiin wi buñ ko njëkkee wax rek nuru nañ dañoo wuute te ba settantalee sax mën ngaa dem ba ne mënees na leen boole jëfe comme li ñu doon dañ ko boole jëfe buñ naan dañ koo tax sis mooy dañ leen dañoo boole ñaar yëpp ci benn bàyyi ci benn kon loolu dañ boole jëfe kon mooy dëgg-dëgg wuute dëgg-dëgg mooy safaanoowuñ waaye dañoo nuru lu wuute rek ci njëlbeen gi waaye buñ xalaatee settante daañ gis ne wuute wuñ dañ leen di boole jëfe buñ xoolee xool xool xam ne mënuñ leen boole jëfe nag loolu mooy safaanoo nag dëgg-dëgg loolu mooy nag taarut xaqiqi boobaa nag ñu xool nasx bu nasx buñ mun taam fuñ sukkandiku wax nasx ñu jéem a tarbiya buñ mun taam fuñ sukkandiku ba tarbiya ñu def tawakkul tawakkul it buñ ko defee mooy dañ koy def di wéy di gëstuwaale loolu sax xëy dañ ko wax ci xalaat nii rek waaye foogu ma ne sax am na masala moo xam ne jaata wax ko ba nagani kenn kenn kenn amu kenn mënu caa dogu foogu ma ne am na waaye nag am ab diggante mën na ko am moom maanaam diggante boo xam ne amagoo ci boo sukkandiku ba tarjeex nga teg ko noonu te te te wéy di gëstu nag boo dee gëstu da nga mën a gëstu loolaat may nga tarjeex baabul ijmaa اجماع دكو تعرفنا هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث ما اتفاق كل اهل العصر ما واجبنا جب جب جب جب دبو دبو بني واجبنا دكي جبلو علماء الفقه آه. ñooy tax muy wax ndax ñoom ñoom la ñoom la seen mbir mbirum àtte seen mbir la ñoom kon bi naan waa jamono mooy ñoom borom xam-xam fiq yi bokk jamono dañuy dëppoo duna nukkuri ala tibaari xukmi amrin mooy dañuy dëppoo ci jàpp àtteb am mbir mu xew mu nekk rek xukmu charan comme ñu dëppoo ci xukmu daal بروتيب حكم شرعي لو ملنا حرمة الصلاة بالحدث فالحكم شرعي لا ما أرامك جلي تا تا أمم تج عندكم تج أم تج ما نك لاب أرام جلي دي أرام بونيت كلابوت لو حكم شرعي لا دفعوا كتير برضو فهم يب دفعوا نك لين يتدي إجماع مثال كل ما جمعنا جينا خمنا كيرين جنة أتبوه ñu nekkoon ci jamono jooju tey borom xam-xam jox ñëpp dëppoo ci àtte boobu mu ne wax tujja bil ijmaa min zil umma la gayruha id xussisat bil asma mu ne ijmaa bii mu lay wax nag biñ ci def xujja mooy ijmaa bi xeet wi def ijmaa mooy ijmaa boo xam ci biir xeet wi la mooy ci biir jullit ñi إجماع برام خم خم جلد نيتا خيوا لا خيرها وكن يلين خير لتاخ إتخصصت بالعسما نخير ويد جلد مي يوم لنجعل العسما عسما ماي كارانجي بدون بدون دكوت نجوم تاي وانتو بداخلان لا تجتمع أمتي على ضلالة تخد وفوكو تفنن وفوكو تفنن خد تخد يلقوه kon tey jii dañ naan buñ dëppoo ci dara rek danañ xam ne njuumte amu ci xeet yëpp mënuñoo bokk dëppoo ci njuumte buñ ne xeet yëpp nag mooy mbir mu ne ñoom seen mbir ci xeet wi ci waa xeet wi bu dee mbirum fiq la kon fuqahaa ñoo tax ñuy wax bu dee meneen mbir itam ña seen mbir jëm ci loola buñ ca dëppoo dañu xam ne kon juumul mënuñoo dëppoo ñoom ñëpp juum وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر مقبلا وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر إجماع بو أمرك حجة لدون كي وجمال جنة خمنا كي إجماع بي أمي وجنال جمال جنة سن جنة يتم حجة لدون تنوم لو لمي فيرمو إجماع بو خسي أم تنبير keneen sañuta jéem a seetaat beneen att ci mbir moomu atte boobu rek lañuy ñuy wéyal ku mënti ñëw moom lay wéyal ñoom ña bokk ñu fekkoon jamono ja àtte ba génnee ak ñi ñëw ginnaaw jamono ji ñëpp ku nekk day tënku ci àtte boobu nga xam ijmaa la fii kulli asrin iqbala iqbal mooy nangul lii nangul lii ثم انقراض عصره لم يشترط ay fi inqaadihi wa qiila mustarat léegi nag lii ab ab laaj la boo xam xam-xam ñi dañ ci wax li ñuy wax ci lii mooy dañ naan buñ ne ijmaa mooy waaj boroom xam-xam yi jamono ji dëppoo ci àtte ndax ba dañoo wax ne ijmaa am na day fekk ñu dëppoo ci àtte bi ba ñu ci dëppoon ñëpp itam jógi fi faatu faatu ba nekkatuñ fi ndax boobu la door a wax na ijma am na wala buñ xasee dëppoo rek dañu daal di wax ne ijma am na duñ duñu xaar naan nañ bàyyi ba ñu ñu ci dëppoo ñu faatu ba nag xëy nit daa mën a wax ne kii bu génnee xalaatam li fekk mi ngi dund mën naa am mu am benn xalaat ci mbir ma hmm? kon bala ñoo mën a wax ne ijma am na mooy ñi ci ñëpp dañoo dem ba faatu te kenn sëppu ci xalaatu kon ñaari ñii dañ ne sart la mooy inqiraadul asr mooy ñu dem ba ñi nga xam ne ñoo defoon ijma bi ñoom ñëpp kenn nekkatu fi ñëpp nañ bu faatu bu ñu faatoon te kenn ci xalaatam ba mu ci la ñu doon wax ne ijma am na am ñu ne nag sart loolu ñàkk sart gi nag moo gën a moo gën a not moom la jiital bu dee wax kii la nangam rek ñu taalif bu ñu waxee noonu rek mooy dañu wan ne lañ ca teg moom ñoom moom jàppuñ ko ñoom jàppuñ ko lañ njëkk wax moom lañ jàpp moo gën a dëgër itam kon mooy du ci sart waaye teewut am ne sart la ci walam yajuz li ahlihi an yarji'u illa ala thani illa illa ala thani ne walam yajuz li ahlihi an yarji'u mooy def ijma ko def borom xam-xam yu xas defo ci àtte daganul ci ñom ñu delloo ñu dellu ginaaw moy daganul kenn ci kenn ci ñom ñu dellu ginaaw ci lam lam defo won ba nopp ba ijmaa xasee am ba nopp bu xasse nak ijma ba nopp kenn señ te genn waat benen xalaat bu wuuteeg ñu defo won ba nopp illa ala thani lu dul nag ci al qawlu thani al thani دنجو سات xam ne dañ koo ñooñu dañ naan moom nit ki fekk mi ngi dund xalaatam mën naa soppi donte njëkkoon naa wax xalaat sax ba ñëpp dëppoo ci it bu xalaatam soppi kuwaate sañ naa sañ naa feeñal xalaatam ba soppi boobu fale si yum na ñoom duñ ko tere ñoom kon duñ tere bu ijmaa amee ki bokkoon ci ijmaa bi a soppiwaat xalaatam wax beneen xalaat bu demee ba faatu nag te waxut beneen nag dañu ñu ko sequl ñëpp faatu ci dañu doon wax ne ijmaa am na ci mbir sàngam بوفنا بجلس موجنا دكتور بيجي وحنا مم صعب إجماع حسي عمل جهنم نقدر فون في تمسي جنوا خد له وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد من وليعتبر عليه ننتي ننتي ننتي لما له قول من ولد وحكي جدو إنه بإجماع أمين loolu mooy ñi ñi sart ba tey inqiraadu de lance ñooñu dañ naan kon ijma bi mu amee itam am ku juddu ginnaaw bi ijma bi amee ba màgg fi ba am fi xam-xam ba bokk ci mujtahidu ni kooka xalaatam dañ koy dañ koy dañ koy limaale ci ijma bi mooy boo waxee xalaat bu wuteeg ba waxoon kon ijma amatul bu waxee mu dëppoo nag ak bi waxoon ñu door a jàpp ni

atte sàngam dañ ko wax ne atte sàngam moy nàngam ñu wax ko ba depp dëppoo ci lañ wax min kulli ahlihi ci ñi nga xamne ñoko yoyo ñu yoyo ibna wa bil af'ali tam moy lo xamne sax waxu ñu waxuñu jëf la jëf la borom xam-xam yëpp sét nañu dal mbir sàngam jëf ji lañ ca jëf te ñoo bokku nañ nañ ca doxale lool ba tay ijma lay do wa qawlu baadin haythu baqihim faal ba tay ñi wax ñi jëf ñii dañoo wax ñi dañoo jëf waaye ñi wax seen wax ak jëf yi ñu jëf ñoo ñoo dëppoo ñoo dëppoo ñi wax ñëpp ak ñu jëf ñëpp seeni wax ak seen jëfa dëppoo kon ba tey ijmaa la wa bi intisharin maa sukutihim xasal fiit intishaar mooy jëf wax wax ju wax ju tasaaroo borom xam-xam wax na jenn wax ju tasaaroo keneen wax lu dëppoo moom keneen wax lu dëppoo moom am daal ab lim bu wax wax ju tasaaroo ba noppi am ñu ca waxut nag ci borom xam-xam yi ndax waxuñ ñoom am na ñu wax te ña wax ñoo dëppoo lu ñu wax am ñu waxut te wax ji nag siiw na mooy kon jàpp lañ daal ñëpp yëg nañ kon bu amee ku waxut ñàkk wax gam dañ koy jàppee ak ànd dañ koy jàppe ak ànd loolu koy ijma yi mooy ñëpp waxuñ ci mbir ñi ci am ñu ci wax am ñu noppi te te mbir mi siiw na mooy jàpp nañ ne ñëpp yëg nañ ko yëg nañ li ci ñuy wax kon bu ñu waxut ñoom rek dañ caa ànd ñu ànd ak ñoom summa saxaabi qawluhu an madhabi ala aljadidi fa huwa la yuxtaju bi mu ne قوله saxaabi yi صحابي bu waxee wax joo xam ne an mazhabi aw gisiinam la moom aw gisiinam moom mazhab bu waxee loolu aw gisiinam lay wane moom foofu la yuxtaj bihi du nekk xujja ala al jadid mooy ci mazhabu Shaafi'i bu mujj bi bu bees bi bi mu demee bi mu demee Misr Shaafi'i bi jiit muy dem Misr lim daan lim daan wax dañ koy xadiim ginnaaw bi mu demee Misra nag li mu daan wax nag jër la jadiid lu ci bari daa soppi daa soppi xalaat ci yu baree baree bari ginnaaw bi mu demee Misra lu jiitu muy dem Misra daa jàppe woon xawlu saxaabi xujja ginnaaw bi mu demee Misra nag léegi jàppewu ko xawlu jàppewu ko xujja mooy suma saxaabi xawlu an madhabi ala al jadidi fa huwa la yuxtaju bi kon ci al madhabul jadid li Shaafi'i xawlu saxaabi du ci xujja وفي القديم نك حجه واه مذهب القديم مم حجه لا لا جاب لما ورد في حقهم غير لما خمنا نيونا سي سن اخ نيوم صحابه يان واخ يو يونت واخ يو خمنا خمنا نيكو في رينا كون نون ديف فلا نيو واخ لا نين تار توك وضعفوه من لي مو لا حجه لا دنجكو تضعيف هل يرد كون نكو bàyyi bañ koo jàpp kon mooy Shaafi'i daal li ci mujj mooy kon xawlu yi du xujja buñ ne xawlu saxaabi mooy loo xam ne waxi boppam la xalaatu boppam la gisinu boppam la te fekkit loo xam ne kenn xamuñ ko ci wuuteeg moom ci saxaaba yi ci des xam ne saxaab yi sangam wax na nàngam wala jëf na nàngam te xamuñ beneen saxaab yi bu ci wuuteeg moom loolu la ñuy tudd saxaab yi bi nga xam ne ñenn ñi dañ ko def xujja waaye ñépp defuñ ko xajja hmm. xëy na naa wax tamit Sim. Muito bem. mười lần rồi bên tôi sang cú giác cái nữa xadis mutawaatir mooy xadis bopp mbooloo mu baree ko nettali mbooloo mu bare mbooloo mu baree ko nettali ci maas gune maas gune mooy yonent bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam ay saxaaba yu bari ñoo ko jële ci moom saxaaba yooyu itam ñuy jële ci ñoom ñu baree ko jële ci ñoom ñoo ñee itam ñu bari jële ko ci ñoom ba ni mu àggee ci Mm-hmm. bind hmm ci hmm yi hmm ma hmm borom hmm xam hmm xam hmm day hmm fuqaha hmm ñoo hmm ci hmm na hmm fekkee hmm ca hmm المهندس ممدوح جبري بن عابس المهندس ممدوح جن أتى جن كتو أتى فخذ ما جن أتى المهندس جن أتى بيجين بيجين بيجين أتى بيجين أتى بو أمي من من جن أتى بوم كي جن جن يوكل يرول لك مهندس واتا تابول لك مهندس فخذ الإمام مالك الإمام أحمد أبو بكر dañoo boole xaar yi dañoo boole dañoo boole ñaar yëpp waaye liggéey muhaddis moom du génne àtte liggéey muhaddis moom mooy jéem a dajale xadis ci boppam jéem koo sag jéem a wane lañ cay la ca wér la ca wérut foofu liggéeyam yam génne àtte boo tàmbali rek ne defatul liggéey muhaddis bu fekkee ku ko sañ def la daa fekk kon daa boole ñaari man-man yi daa boole man-manu muhaddis من التقويم نعم. نعم متواتر حديث متواتر بنص القرآن أه... آه، بكونتي la wasiyata li waaris la wasiyata li waaris alxuraan dafa ñëw ne hmm, alxuraan wax na ci wasiya koo xam ne dañuy wasiyaal waaris ñu hmm, ko waxe hmm, إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ثم الوصية أصلا لا جمعنا أصلا وحنا يمكن أن الوصية الوالدين والأقربين ينتبه يعني نيونا لا وصية لوالد أه، ما نكو تي نسك ما نكو تي تخصيص تخصيص koy yëpp alxuraan moo koy yëpp tolloo daal nu jublu ci tolloo gi rek tolloo gi mooy ci sax gi la ñuy sax gi sax gi sax gi sax sax sax sax gi alxuraan wóor nanu ne wax yàlla xadis mu tawaat fi wóor nanu ne wax yonente bi la mooy sax na ñoom ñëpp seen ak seenu sax ñoo ci tolloo sax gerte bu ci sax yële ñu mooy dog bu ñu mën a dog wala ñàkk ñàkk cee mën a dog bu dee mu tawte dañ caa mën a dog alxuraan tax cee dog li muy mu moo tax bu naan wóor nañu wax yàlla li tax mu wóor na mooy li muy mu tawaatur moo tax kon lépp lu am tawaatur tam dañuy wóor li mu wóor gën a ñoo ci yam alxuraan ak sunna bi nekk mu tawaatur ñoo ñoo yem ci wóor bu mu wóor ne sax na. Hmm. da cee des nag mooy wàllu dara jaag wàllu mel noonu moom fal moo ci jiitu moo ci féeti ko ndax hmm. Hmm. Hmm. benn waaye sorewuñ sorewuñ sorewuñ mutlax moom mooy dañu xool ci wàllu ay amut sart amut sart amut istisna amut wasf yu mel noonu daal mutlax boo amee sart nag ñu ne mu xayyat la waaw boo amee istisna ñu ne mu xayyat la ba tey boo amee wasf ñu ne mu xayyat la sorewuñ daanaka ay waxin la rek waaye jëm maanaam moom sorewuñ ndax lépp rek mooy bu dee am ak bu dee mutlaq yëpp mooy loo xam daa ëmb daa ëmb lu yaatu bu dee xaas ak mu xayyat tam mooy loo xam ne dafa xaw a xat dafa xaw a xat dajut dajut lépp sax sax waaw lan ko génne ah xam nga moom bi xam nga bi mu demee Égypte bi muy nekk euh, Saam day am fi mu fi mu fi mu kii day jeexital ci moom fi mu fi mu nekk daal sàkkoo fi xam-xam day jeexital ci moom. aada yeeg xam-xam yeeg yëpp day jeexital ci moom bu demee Égypte nag gis leneen lu wuteeg li li ki yoon yeneen aada yu bees yeneen nit ñu bees yeneen xam-xam yu bees loolu day tax mu jeexital ci gën <coughs> ci moom daal lu bari gën a tax ba euh, tënku ci ci ci ci ci ci xarfi yaak ay yooyu daal Égypte gi gën a gën wàññi na ko ci moom wàññi na ko ci moom. ñu bari ñi gën a tënku ci ay kii mooy ñi nga xam ne seen ki yaatuwut seenu jaxasoo yaatuwut noonu seenu jaxasoo ak yeneen xeet ak yeneen aada ak yeneen nangam yaatuwut noonu xaw a tënku tuuti seen xalaat mën naa xaw a tënku lu seenu jaxasoo gën a yaatu rek seen xalaat gën a ubbi ñuy gën a mën a nangu yenn itam yoo xam ne bu njëkk daawuñ ko nangu li ko ci am ñu néew ñu néew ko ci nangu ñu ko ci xawlu saxaab yi lañ jublu waxuñ lu saxaab yi dëppoo loolu waxuñ ko loolu ijmaa la waaw lu ab saxaab yi wax la ñu wax ab saxaab yi lu mu wax maa mu def ko te xamuñ ku ci wut ak moom loolu la ñuy wax bu ñu xamee wut nañ ci ak moom moom kenn kenn kenn newut ojjal ko fan nga def ojjal boobaa ndax ñu mel ñëw ay saxaaba lañ ci wax li ci wax li waaw bu fekkee kenn wax na dara maa mu def dara teg xamuñ ku ci wut ak moom foofu la ñuy wax.